Euh, salaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ni ma leen koy waxee saa su ne yéen a jàpp taw bàyyi ba tax na amuñu seen fay euh, tey nag ñoo ñëw seet si waat beneen daana nee naa leen info réew mi saa su ne ci li ngeen bëgg lay dox waaye it dañuy dëppoo actualité dañ ne spécial fête de mères ñëw seet si koo xamante ni defe naa képp kuy jigéen fii ci Sénégal naw nga ko lool wante it euh, respecté nga ko jox nga ko cër lool ba tax nañu porté suñu choix ci moom tey nag c'est suñu kenn ku dul euh, Rouba Seye balaa dara dañ koy bàyyi rek mu présenté wu internet yi ñuy seetaan après ñu daal di rek euh, wéyee leen xam naa tey dara du yomb <laughs> asalaamaaleykum internetu info réew mi dañuy sant yàlla julli ci Seydina Limaam alayhi salaam waaye di sant suñuy jur bu baax a baax a baax ah, man moom maa ngi nii daal tudd Rouba Seye Jagana ah di comédienne di euh, nit ku simple hein, d'après nit ñi nit ñu nit ku simple ku nekk ci famille bu modeste machallah, hein, waa happy quoi happiness. <laughs> ñoo ko déggandoo tey jongama 4 giga la seesi ñu fas yéene def spécial fête des mères mais balaa dara dañ koy laaj lan moo ko dugal ci biir art bi ci biir théâtre bi nak defena naa euh, buñ ko xamee tey loolu moo ñun ñëpp xam ko le théâtre nak mom ah, yalla dogal na euh sama ci ah, sama euh, parce que dama suis ba timide je wax toujours suis ngi resté ci sama benn coin rek xam nga mu peut-être li du jëm li ñuy wax day gis ci peut-être suis du ko gis mu suis benn théâtrale bu suñu koñ koy wax Fall sama ma ci li euh, théâtre Euh, macha allah defe am na solo loolu kon tey moom li ko dugal ci théâtre sax wuy siwaat na bés bi ndax spécial fête des mères la ñuy wax tax ku ne yaay ne doom doom dafa am solo trop euh, ci yaay mais euh, dañu gis en 2018 ñu daal di lay nommer meilleure actrice déjà dinañ ñëw ci ban impression nga am bi la sénégalais yu bëri daal di voté ba nga jot titre boobu mais lépp lu waral tamit titre boobu di euh, série mbectel bi nga doon joué donc tey mën na nekk suñu waxtaan dañ koy cadré bu baax euh, ci série boobu noonu léegi ñu bàyyi la nga développé. voilà euh, wax dëgg yàlla biñ may nommé meilleure actrice de l'année 2018 biñ ma ko joxee surprise laa am effectivement surprise bu mag a mag parce que yi man yëguma ko woon sax pratiquement waa leeral point net ñu ma woo téléphone expliqué ma wax ma may leen ah bon ñu ne ma waa yalla dogal ma jël ko ma am ci fierté am ci contentement bu maga maga mak di wax toujours ne que euh, loolu dafa nek lu baax parce que day encourager euh, artistes yi bu baax xëñ sax du sama njàmbaarte yalla suñu borom moko dogal ndax yalla xam na ne euh, li may wax toujours naan commencé guma sax def théâtre ah waaye euh, du man kase mais groupe Mbetteel yépp la ñom ñoko mom comédienne képp kuy comédienne nek bir Sénégal ya mom titre bobu ndax kenn ko ci nek yaangi bay sa waar ca wall bañu la jox ca personnage bi nga xamanteni mom ngay incarner wax dëgg yalla machallah amna solo lool au delà de liguey bi euh, ñu gis ni tamit ay humain ngeen ay doomu adama ngeen da ngeen yek yëg des fois ñu jouer loolu scénario. sa xol tooy ci parce que ay doomu aadama rek lañu nga nekkoon benn femme soumise si biir euh, mbégteel déjà bëgg naa nga wax ma nan nga dundee rôle bi au départ bañ la ko joxee ñu ñëw ci biir femme sumise bi ndax euh, Papa Diouf biir këram baatam rek la am turu ba daf ko ko nanguloon trop. waa xam nga Sénégal muy Sénégal muy àddina war nga képp képp ku jigéen boo duggee ci néegu say wax dëgg yàlla sa jëkkër amul dara dara dara dara ci sa biir néeg lu dul baatam te góor nag wax dëgg yàlla li nga xam ne moo ko moom muy baatam jox ko ko su ko defee moom aussi euh, da lay delloo li nga xamante ne ni yow moom nga moom muy yar xale yi muy euh, c'est-à-dire jox la confiance ba mu doy nangu laa bàyyi biir këram mais xam nga li sama papa daan wax naan baatu ginaar moom boo koy xëccoo ak góor moomatul baat ba ah donc loolu rek lay wax jigéen ñi di leen conseiller bu baax a baax kenn jigéen buy sëy rek euh, sa baat wax dëgg yàlla góor moo ko moom góor gi nga xam ne baat rek la am ci biir këram danga ko koy jox ba mu doy day tax mu gën a yaatu ci kër gi day tax mu sawar a ñëw ci kër gi waxuma la dara sax mais day tax bu mbir amee mu mën a taxaw défendre li nga xamante ne nii mooy euh, fameem donc euh, ci noonu rek laa incarné rôle bi rôle bi nag pour ma incarné ko woon mettiwul dara dara dara parce que dama am benn référence boo xam ne macha allah muy sama yaay li may wax toujours euh, mon référence la ci man ndax euh, bi ma ba suñu jonne yalla tay mosuma ko gis mu tontu sam papa musuma ko gis sam papa wax mu tek ci baat donc pour nga incarner rôle boobu dafay doon lu yomb dal wa donc euh, facilité bobu la amone ci biir ci biir rôle Mbetteel wa au-delà de femme soumise bi ñu gisoon Rouba Seye doon ko donc doxale digantem ki nga xamanteni mo moo borom kërëm ci biir série bi di Papa Diouf gis nañ tamit nga nekk femme boo xamante ni euh, dafa bàyyi activité am yépp nekk femme au foyer li ñuy wax euh, tey nan nga gisee euh, femme au foyer jigéen buy sëy bàyyi lépp toog ni sàmm njabootam. waaw loolu devoir bu jigéen la xam nga jigéen tey bu fekkee da ngay da ngay sëy fekk bon avant ngay sëy sax d'abord foofu lay ñëw bu fekkee euh, avant ngay sëy euh, liggéeyoo euh, defoo dara lu dul toog sa biir kër nekk jigéen ju ju ju ju jàmbaare parce que ña ñàkk liggéey teewut a doon jàmbaar donc nga nekk jigéen bu jàmbaare góor jël la dugal la ci biir këram li nga mën rek mooy toog mel na nga meloon avant ngay sëy ak moom nga nekk benn femme soumise euh, demoo fenn li am solo ba am solo rek mooy euh, fruit bi nga xamante ne nii après euh, mooy ñe mooy meññ mooy meññ ci yow donc nga fexe rek ñu nekk ay exemple nga fexe ñu nekk ay nit yu baax nga fekk ñu nekk ay nit yu yiw nga fexe ñu nekk ay nit yoo xam ne fu ñu romb rek bu leen joxoñee ñu teg ci lu baax bien vrai que ñëpp mënuñu waxandoo waaw mais au moins bu fukk waxee waaw kenn bu nee déedéet après fukk waaw yëpp da koy daal di nëbb donc man loolu gisuma ci benn inconvénient à moins que ku góor ki nga xam ne moom nga nekkal aussi mu jàppale la xam ne bàyyi nga lépp euh, bàyyi nga ñëpp bàyyi lépp topp ko toogal ko biir këram di ko yaral njaboot gi nga xam ne yàlla moo leen ko boole euh, bu ñëwee fekk la fa bu demee bàyyi la fa boo amee sa ñaar dërëm mu doyloo ko soo amee sa dërëm mu doyloo ko kooku aussi danga nga war a gestu ci moom nga bàyyi ci moom xel euh, jàppale ko ba nga xamante ne ni du wéet du wéet te lépp lu nit mënti wax ci mbedd mii du doon loo xam ne daf koy dégg nga may ko jàmm surtout xam nga jàmm mooy sëy may sa jabar jàmm et puis ngeen am euh, c'est-à-dire c'est toujours euh, euh, comment dirais-je euh, la rek ba consensus dafa baax ci biir ci biir ñu koy rek suñu mama ay jambar lañu ay un lañu là ñu ngi lu ne ñu ngi muñ lu ne ci dara ko rek ngir am ngir vraiment tedd ba tey dañuy des ah, ci biir Mbektel. parce que Masha'Allah, allah trophée ñu 2018 c'est pas pour rien. dafa dafa impacté jigéen yu bëri série bi boo ko seetaanee mënoo ko seetaan ba mu jeex te ci biir rôle Rouba yow en tant que maman gisoo ci sa bopp am na benn point boo xamante ni forcément dund nga ko wala jaar nga ko euh, ci sa biir euh, néegu sëy ba moo tax euh, jigéen yu bëri adapté woon ko doon ko seetaan ñi dem ba benn instant nga génn ci kër gi mu doon lu bett ñëpp naka nangu na lu ne foogoon nañ du mës a dem du mës a randu ñu bëgg nga ñëw foofu yaay yi nga xamante ni ñu ngi daj lu ne ci seen biir kër yi góor yi ñu bàyyi xel jigéen nekkul ni loo ko teg rek mën na ko dékku ndax euh, bés dina ñëw dina la bàyyi wala dina la wan ginnaaw fa ko dul xaare waa xam nga li may li nga wax sànq. Mm-hmm. ay nit lañu. Mm-hmm. xol lañu am di sentir. Mm-hmm. et que euh, sëy day toll foo xam ne di jigéen da ngay muñ buñ benn moment boo xam ne da fees. kenn mu ci dara. da ngay fees parce que dafa am góor ñoo xam ne alaa accu duñu dellu ginnaaw mooy genre Papa Diouf yi dafa sikk alaa accu duñu dellu ginnaaw danga dañuy topp ci yow topp ci yow topp ci yow ba sës la ci mur donc euh, li ma njëkkoon gis foofu c'est-à-dire le fait que toujours mu dëkkal sama nopp ne aw ma fu ma dem surtout loolu xam nga jigéen boo mën nga koo taq amul dara yorul dara yaakaarul kenn ku dul yow mu def la ndey def la bàyyi bu ko fàttali démbam dafa metti dafa metti jigéen joo topp amoo dara bi ma lay takk ci mbedd laa la foree caga nga nangam nangam nangam mais caga boobu yow yaa ko gisoon bëgg ko takk ko kenn forcé wu la ci nga indi ko sa biir kër mu bàyyi léppam topp la gere sa njaboot gérer sa kër gere sa famille di fexe nag doon puso sa biir famille di ñaw mais yow en tant que góor chaque jour nga dëkkal ci am ne ñàkk foo dem moo la bàyyi ci kër gi parce que dafa dem ba noonu la ma tëyee amoo foo dem boo amoon foo dem ba tey dem nga sa yaay bàyyi na la dangay torox soo génnee fii dangay torox dangay dem benn moment nag jigéen amul lu dul euh, euh, personnalité am amul lu dul dignité loo xam ne nii du deñ ci moom nag day dem ba benn moment boo xam ne moom dootul mën dootul mën elle est mu génn parce que bu continuer toog dina def lu muy rëccu mbaa mu wax lu muy rëccu balaa loolu lépp di ci am nag nga uti foo dem booy fanaan ci mbedd mi sax daf la koy gënal. que góor heure boo xëyee mu xas la heure boo xëyee mu fàttali la sa démb waaw loolu moom dafa nekk loo xam ne góor ñi war nañ ci bàyyi xel diw amul fu mu dem te chaque jour nga dëkkal ko ci noppam amul fu mu dëkk dafa torox dafa nàngam bu demee fu muy fanaan fu muy nàngam non bu yàggee ji ku jigéen kii bu bu bu fippoo rek du baax. macha allah am na solo dañuy daal di waxtaanee nag yaay yi nga xamante ni elles sont mères célibataires di yaral seen bopp seen ay doom bari na. am na si ñoo xamante ni euh, jotuñu sëy dañoo war na lool avant ñuy dugg ci mariage am na ñoo xamante ni dañu dem ba ci biir divorcé yor seeni doom euh, ba tey ci biir mbégteel nga dund loolu euh, tey yaay yooyu noonu ban message nga leen di lancé. jigéen ñi ay jàmbaar lañ de. <laughs> gis nga yëpp. Ah, jigéen ñi ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ parce que duñ daw dara duñu daw dara tey ki nga amal doom war mariage mu toog jàpp ñaamburam bàyyil da gis koo am ak koo amal doom waxuma la sax dund mais pour jël kayit bind ci turam rek problème la sa doom màgg du am avenir du am kayitu juddu du jàng li nga dëng walla nga obligé parce que man gis naa koo xam ne papa ji la jël mu adopté doomam pour doom ji am kayit gis naa koo xam ne frère la jël mu adopté doomam pour doomam am kayit c'est des faits yoo xam ne dafa metti léegi nag bu doom ji demee ba taxaw nga jóge fële yagar yagari indi sa ñaari guro ak sa ñetti tàngal ñëw baalu àq ko jigéen ki ne déedéet ñu ne walla dafa soxor dafa dëgër elle est mu ngi bëgg soof est-ce que xalaat nga li mu daj ci ëmb daj ko ci wasin daj ko ci yor doomam te gisula déggu la jigéen ñi ay jàmbaar lañ ñooñu nag duma def dara lu di leen encourager xam ne lu metti rek dina ma sa neex lu metti rek dina ma sa neex man de ma mujjee fu metti ma njëkkee fu metti mujjee fu neex moo ma gënal euh, njëkkee fu neex mujjee fu metti te yàlla lu mu def am na lu tax te gis nga yàlla moo gën a juste xam nga juste weesuwul loolu dal kooku mu ëlbatiku barkeel doom ji ëlbatiku jox doom ji teraanga ba yaayam content. papa ji la dama koy déclaré wat fekk sa suis am ay kayit am diplôme am Je ban changement cest dire pour sa pour lan té gis nga nak lég lég limay lay wax femme yak femme yaay yi ci kër gi jur sen domi gor ñu def lolu ñu ci jeune nga day yak sa avenir bul nangou day yow xale nga yow xale nga te te tooñ doomu jàmbur boo xam ne yow yaa ko mag yow góor sa yaay naan la xale nga mais ñun ban àdduna <laughs> ban monde lañ nekk lan la ñuy dund donc dafay jot pour tey yaay ju nekk toog place yaayu keneen li may xeex mooy man bëgguma ku naan doomu jàmbur doomu jàmbur amul doom yépp ay suñuy doom lañ. léeg léegi sa doom tooñ def lu metti yow nekkal ci place yaayu ko jigéen ki xool na yow bu ñu ko defoon sa doom bu jigéen est-ce que nii ngay réagir xam nga lu yàq société bi kenn du taxaw place kenn. dañoo ku nekk sa bopp nga fi nekkal. te dafay jot ñuy taxawante ci ay place ba nga xamante ne nii kenn ku nekk sa moroom la mu daj di nga fexe ba bu doon yow naka ngay comporté woo ñëwal nga suturaal ko. même bu fekkee du sa doom laa bu fekkee du sa te jigéen ñëw taxaw ne diw moo jur sama doom demal nangul. ba tey dañuy waxtaanee aussi jigéen yi nga xamante ni rek euh, yàlla da leen teg nattu ñu nekk ci prison yi ndax defe naa jommul kenn nga def nga bañ a def foofu moom defe naa euh, ku nekk mu ngi fa mais rawatina yaay yi nekk ci biir prison yi ndax di dinañ jël jigéen yóbbu ko comme bu ñu xoolee kaw euh, rubu sëy si biir mbégteel bañ koy yóbbu mu ngi nekk en état. am fa doom ñu nangu doom bi ak ni doom saxee ci biir xol euh, tey euh, ban message tamit ngay sa jigéen yooyu nga xamante ni ñu ngi foofu noonu. waaw jigéen ñi nga xam ne ñu ngi nekk euh, prison maa ngi leen di ñaanal yàlla yal leen yàlla ubbi ba ñu mën a dellu ci seen ak njaboot. parce que prison mom nek na lu metti lo xamné bien vrai que djomul euh, kenn waye nak euh, yalla ñu yalla doli sutura ba képp ko xamné ya nga fa rek muy goor muy jigen yalla la yalla génné ba nga mëna déllu ci sa biir njaboot. xam nga nak euh, au fait des fois nga gis jigen jo xamné mi ngi biir prison ëmb fa euh wasin bon ça à dire que buy buy dugg day yóbbaale biir mu génn avant muy génn mu wasin fa ñu nangu doom ji. yóbbu loolu tamit nekk na lu lu metti parce que doom dafa sax ci xolu yaay mm-hmm. ah, nga wasin rek ñu ne fuccat sa doom yóbbu metti na dañ leen di ñaanal yàlla rek yàlla bu mu fa dal kenn hmm? euh, léeg-léeg mu nekk loo xam ne aussi muy lu muy lu méttee métti métti ah, léeg ñu tuumaal fa nit loo xamante ne nii yàlla suñu borom rek la koy seddal ne amul ah, xamul sax loolu naka la demee nga nekk fa tëdd fa ay at génn léeg-léeg société bi daal di lay beddi ah nga tardé lu bari bari bari ci sa àddina hmm, say doom boo ñëwee dootoo dootuñu la xàmmee c'est-à-dire day mel ni genre gan ci biir société bi may ñaana ah, ñun ñëpp nañu jàpp ne jommuma jommul keneen ak keneen léegi nag day des ci bu génnee ñun ñi nga xam ne ñun la fekk ci biti naka lañ koy dugalaatee ci suñu biir fexe jàppale ko ba mu am amaat taxawaay bu dëgër ba day dem sax ba day fàtte loolu ah, léegi nag euh, euh, parents yi euh, maire de famille yi muy ñun ñëpp ay jigéen lañu nañ leen jàppalante ba nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñu ngi foofu bañ a jooy dara bañ a am dara lu ñuy lu ñuy métitlu parce que aussi neexul tout le temps yaa ngi tëdd mais boo tëddee à coup nga wax ko ak nga ñaax ko wax doo nelaw rawatina nga am sa doom ñu dindi ko ci say loxo joxe xamoo ci lan la nekk xamoo nàmp na xamoo xiif na xamoo mar na ak doom ni mu mel wax dëgg yàlla metti na metti na trop trop trop ma leen di souhaiter nag wax dëgg yàlla une très très très très bonne fête di leen ñaanal yàlla bu wér a wér a wér a wér ci barke Seydina Mohamed li nga xam ne mooy mbas mi wàcc suñu kaw muy yéen muy ñun muy keneen ak keneen na ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañu koy nettali ëllëg ak a ko ñi nga xam ne jot na leen dal may ñaan yàlla yal leen yàlla faxasal seen bopp ba mu jeex fi ñi nga xam ne dalul leen mu leen dal ci barke salaatul fatiha defe naa am na solo lool vraiment ñuy bàyyi xel bu baax si ñoom di leen wax ne suñu xel jugul benn yoon ci yéen mais suñu borom moom mooy tege nattu te defe naa lépp lu mu teg doomu aadama rek antan na ko ñu leen di souhaiter une très très bonne di ñaan euh, suñu borom teggi leen gaaw nattu bi ba ngeen fi fekk ji seen njaboot ndaxte euh, seen place rek euh, seen biir kër yi la te incha allah mën na ko yàlla na ko suñu borom def dañuy dugg suñu dernière question rek ndaxte lu neex na trop wante lu duuf yëpp xaju si cin li temps baa ngi bëgg dab dañuy dugg ci point boo xamante xamanteni nak euh, société bi euh, dañ koy dañ koy dund bu baax muy jigen yi nga xamanteni ni ay elles sont maman on va dire parce que man dama japp ni bép jigen rek maman nga ñuy sey mais amuñu takkandeer ñu sonal len lool nak ci société bi ñuy dund lu affaire yu doy war di len ma di len di len di len di sonal sonal bo xamanteni ni dañuy dem ba des fois di len outal wuju di len outal wuju do tamit euh, sumay sumai wax ci ñom sama xol fay toy parce que amna yo xamanteni boo ko dundul wala amoo ku la jege ku koy dund des fois doo mën euh, comprendre tey femmes yooyu ban message nga leen di lancer. dama leen koy lancer lancer ko sama bopp aw ma doom aw ma takkandeer donc euh, ma leen di wax rek euh, ne leen yàlla jeexul ah, yàlla jeexul. et que adina ya a que ça du lolou kasse man ngeen dund sen dund tranquillement han ah, ta xamne ne lu am rek yalla la euh dom na dañuy ñaan yalla kep ko xamne ne amu ko rek yalla na yalla may ci kaw mu jik la bu fekke naru laa jig man je pense que lolou du du du du problème du souci ñi nga xamne ne euh, ñoy nekk ci biir kër yi di sonal jigen ñi nga xamante ne ni dogal na ñi ngi sëy amuñu danyu dañu dañu umpale yalla dañu kumpale yàlla te xam ne doom kenn du ko joxe yàlla suñu borom rek moo koy joxe euh, bakkan la yàlla moo ko tëyal boppam. Euh, sëriñ bi nga xam ne dangay dem mu lay ñaanal euh, mënul dafa tombeek amina suñu borom sëriñ bi ngay dem mu ñaanal la te du am mën na dafa tombewul ak amina suñu borom. kon dañuy jël lépp wekk ci loxo yi suñu boroom ñi nga xam ne nag euh, dañuy dund loolu muy ay naqar ci biir néegu sëy parce que agressé la agression la booy xool euh, jigéen fi mu faible fi mu gën a faible mooy mu ñàkk doom nga xasee ko ko dafay diis ci moom torop waaye ma leen di wax rek ne bu mu diis ah, bu mu diis bu euh, bu la nit xasee ci loolu da koy reetaan sax en tout cas man damay ree parce que dama naan kii xamul yàlla kii xamul yàlla nit xas nañ ko ci fekk mu mu ëmb te xamu ko xanaa ah, xam nga des fois yàlla day day xeex dafa mën a xeex des fois day xeex dafa mën a xeex parce que na muy xeexee mooy yow ma ñëw taxaw di ko xas yàlla mën na dogal koo ko am doom yow ma amoon ay doom yàlla mën naa dogal say doom nekk ci dëkk bi di def naka sudul noonu ba doo ci bëgg dara donc nañ leen maanduwaat ci mbiru suñu borom liñ liñ ciy maandoo mooy euh, ñi nga xam ne amuñu doom te bëgg ko dañ leen ñaanal ñu am ko waaye nag dañ leen di ñaanal buñ ko amee yal na leen jik ci barke sayidina Muhammad, parce que nit ñaan lu nga ci doom ñaan lu ci doom ba wara accoucher yalla mom la fa nit ñaan lu nga ci doom ñaan lu ci doom ba doom juddu dem ba dëgër wara tekki yor la yalla jël la nit ñaan lu nga ci doom ba sa doom dëgër ba nga am yaakar yalla suñu borom jël ko donc nañ leen delloo ci waat xel yi te xam ne na muy man keneen ak keneen ak keneen euh, bu joté rek day daal di yomb dara wul bu joté rek yomb wallahi macha allah defe naa am na solo lool ni mu ko waxee rek jigéen tey euh, ñàkk na bakkanam ngir joxe euh, dund te defe naa li ci ëmb ñëpp xam nañ ko euh, yaay bu nekk moo nekk sa biir xool boo ko waxee boo ko waxul wante àddina lépp loo yóotu rek yàlla na doon sa wërsëg sama maam danaan ñàkk doom du yara dal jur doom mu ne léng mënul la dara baa mu lay teg gàcce loolu mooy yara daal ba tax na euh, l'émission touche à sa fin dañ lay bàyyi rek nga joxe sa dernier mot laata loolu may remercier sama équipe technique maam Diarra euh, ci caméra bi nee naa ko jàmbaar la jigéen bu mën góor la di ko souhaiter une très bonne fête moom tamit am bàyyi la nga jox sa mot la <laughs> macha allah ah fi nga jeexalee lay tàmbalee jaara macha allah et puis elle est tellement jeune Khalé. hein, ah, macha allah euh, félicitations maa lay souhaiter une très très très bonne fête di la ko souhaiter Rose bu baax a baax di souhaiter toutes les femmes du monde di ko wax euh, suñu ruba suñu xool jigéen fa bonne fête les femmes Jambar, maa ngi di féliciter bu baax a baax di wax bonne fête di ko di ko souhaiter ñëpp ah surtout maman yi nga xam ne yàlla dogal na ne ay jigéen lañ nekk seen biir nekk parce que man jigéen ñi maman la leen di wax góor ñi ma leen papa maman yi nekk seen biir néegu sëy te amuñu fa doom maa ngi leen di souhaiter une très très très bonne fête feetu leen ku xeeb sa noos ku xeebul sa noos yaa dàqu noos waaye nag gis nga boo xeebee sa noos noosoo leen lu neex <laughs> kon nag bonne fête à tout le monde en tout cas merci beaucoup encore ci interview bi may remercier waa Info Rewmi bu baax a baax di leen féliciter aussi xam ne am nañ équipe bu dynamique bu respecté heure parce que man dama respecté heure waaye man balaa may pare sax. Rose Salam na salaamaaleykum Salam ne en tout cas passez une très belle fête. <laughs> Euh, merci beaucoup on souhaite une très bonne fête à toutes les mamans wante liñ ñu koy waxee rek fep foo dem daa am kilifa ba taxna suñu xel du génn ben yoon ci première dame euh Faye Sall mom mi nga xamante joxé na exemple bu baax euh, ci bép yaay n'a ku né yaay ne éducation mu wacc jàngam ngir gérer famille tay machallah euh mu don tamit référence fi ci réew mi ndax ah defe ci xol yépp la nekk. ruba lolu foog nga ñëw ci. kooku euh, yalla mo dogal ma estimé ko xolal dama ko bëgg li tax dama ko bëgg moy benn elle est noire <laughs> xam nga man dama xawee égoïste. <laughs> non deug la il faut être fier. voilà elle est noire ñaareel ba euh dama gis ni mu taxawoo borom këram man dama bëgg jigen ju fonk borom këram. comme man ni ma fonkee sama jëkkër na maa nga demee Balla Socé nit ku baax macha allah donc dama bëgg jigéen bu fonk sëyam jigéen bu fonk jëkkëram daw ci dara ak nu dëkk bi metti metti ak lu situation bi metti metti ak lépp lu ñu mënti wax jëkkëram mi ngi toog ci wetu jëkkëram di ko waxtaanal di dalal xelam donc uuf ay doomam ba pare di jàppale njaboot gi

diko ko souhaité sama yaay boy fay biram pendo waagaan tugu-tugu waagaan xaalis waagaan nee la yow ken gënu la waaye di ko souhaité tamit euh, une très bonne fête à madame Ndiaye Thioro euh, merci de nous avoir suivi am nañ mbégte contenté passé yéen moment yi alors amis chers internautes restez connectés pour la suite de nos programmes d'ici là portez-vous bien